sekundik day jinne jommal na la turbine yéene kaay na jinne joojee daal dinay fàdd des médias turbine ne wax nañ ko def nañ ko Zik FM ak Sen TV daal dinañ leen di tëgg ràpp ci diirub ñetti fan yéene kaay bi na dogal la boo xam ne teg nañ ko de waaye amul fondement bu légal ñeendali rek daal di jëpp mel ni ku ñeendali groupe des média daal lañ fi daal di gis loo ci mënti waxe Sénéra ak Babacar Diagne dañoo daal di violer nag loi bi nga xam ne teg nañ ko te may moytu na dara leen ci fekk day bànni sugu juriste ne wax ji daal mooy dogal bi nga xam ne Sénéra jël nañ ko amul fuñ ko teg xel sax nangu ko nag dafa daal di illégal ngir muy leer tribune ne daanaka réew mi yëpp lu dogal bii de dogal bi nga xam ne daal dinañ koy jël daal di nag dañuy tëj seen TV ak Zik FM yéene kaay bi ne tey laa leen di xamal nag fan la coow li dooree coow daal ma nga dooree ci ñibbi si El Hadji Ahmed Aïdara gannaaw bi nga xam ne fal nañ ko maire bu Guédiawaye Sénéral nag daal di bëgg weñ loxol groupe des médias ne ko El Hadji Ahmed Aïdara mii revue des titres ak revue de presse nag ko dakkala def ci rajo beeg télé bi des médias daal di lànk ñu daal di leen di xamal ne kat artu nañu leen ca la bugaan nag jëlee xalimaam daal di bind ab bataaxal sénéra xamal leen ni dogal bii ngeen ñu bëgg jëlloo duñ ko bu ngeen di fëkk gémmiñu sàmm fekk leen muy walis waay foo leen fàttee yaa xam mbay directeur général bu quotidien national Le Soleil bi nga xam ne ma nga ni faax biir APR bokk fa bokk nag fa ñu jëlee dogal sax faf nag lu ngeen wax ci Thierno Birahim Fall mi bokk APR nekk directeur général bu agence de presse sénégalaise bugaan ne leen lu ngeen di wax journaliste RTS nga xam ne ñoom ñooy présenté journal vingt bu chaîne nationale bi ci biir journal boobee ñu fi teg seen mouvement ak na muy doxee te tegu leen leen genn ak daan xanaa da ngeen fàtte Racine Talla mi nga xam ne mooy directeur général bu RTS bokk nag ca APR na ca faax turbine yéene kaay wax ji wax ji mooy bëgg nañu nag faagaagal ab taskatu xibaar koo xam ne laata moo nekk maire métier bi la amoon moom la xam koo xam ne nag laataa askanu géejawaay di ko wóolu di ko fal métier journaliste la xamoon revue de presse la xamoon ak des tey jii kooku la ñu ne bàyyil sa nga dem dem toog waaye yéen a gi bokk na ci daal di faagaagal na groupe des médias bi nga xam ne day déranger 24 kaay ne waxtu woow ñu tëjee ñetti fan des médias bugaan i ne leen ci 24 kaay ci day Macky Sall daf leen xamloon yéen ndaw Sénégal ak juróom-ñetti milliards ca waxtu woow mu taxawal fa arène nationale fanweer ak juróom juróomi milliards deful lenn loo xam ne mën na yokk seen xam-xam waa grand place ne moo tax it bugaan xamal na leen ne yoonu yokkute yoonu yàqute la lañ dige woon pigi nag géejawaay defuñu ca lenn lañu xaar nag ci ma dàq Ahmed Aïdara duma ko def tey duma ko def ëllëg leneen la nag mooy la mu ne day wéyal liggéeyam donte meer la loole ñëpp ko war a lu ndax nag ñaqam la bëgg a dundee xalaatul benn yoon di dundee loo xam ne nag alalug jàmbur la suur su aane ma loo ci mënti dégg it parrainage moom ña ngi koy daal di waajal juróom benn fan ci weeru mai la jàpp juróom-ñetti fan ci weeru mai ñu war koo contrôler juróom-ñeent jàpp fukki fan ak juróom benn ci weeru mai bi ña nga xam ne nag parrainage bi xamle na ne du ñu bokk ci élection yi ñu leen ko xamal fukki fan ak ñaar ci weeru mai mu njaay si se ne boo moytul juróomi fan ci weeru mai ci minuit ga fa lay feesee dell ndax ki njëkk déposé moom wàllu doublon daal dina cay mucc fa yàllaahu le vrai journal ne loo ci mënti déggin Macky Sall moom génn gët rek la am moom moo dina daal di tas tasar l'opposition bi wàññi seenug doole l'observateur ne ma moo taxit Macky ak Karim day juboo lay gën a nduróol yéeni kaay gën a nduróol de ngir nag bëgg a wàññi doole opposition bi Boubacar Camara ne dama leen bëgg a xamal leen képp koo xam ne daal di ngay minimiser daal di nag jàpp ne Macky Sall mii xam-xam ci wàllu politique tële na ko yow ci boppam yaa njëkk loru Macky Sall saa bu waxtu wa jotee dana xàcc te dana dóor te képp ku mu mas a xàccil Boubacar Camara ne yat ba dal na la de le quotidien ne en tout cas remontada daal la ñu bëgg fii ci Ndakaaru te Amadou Ba lañ ko sant Macky Sall mbaa du créer ay ko daal di xarmal te dayaawo loxol Macky Sall ngir arrêté Ousmane Ngom ñu daal di koy dakkal ci réew mi critique yéene kaay ne ma boobu coowal suite boote daal yënguwaat na instruction ba daal di yënguwaat ñu war a déglu Ousmane Sonko gannaaw bu ñu dégloo ñeneen ñi le mandat yéene kaay ne Ousmane Sonko daal woote na daal ci ñoñam te ñu benn yoon déglu gi daal di mujjee ci xiiroo ak ŋaayoo le soleil yéene kaay ne Makhtar Diop moom la mu bëggal Sénégal moom moo di ku ci nekk gis boppam ci wàlluk am-am libération yéene kaay ne terewul ñaawteef gi day xamuñu kañ lay jógee ci réew mi Mariama Maane mii nga xam ne ñaari doomu wujjëm daal jël daal takk takk gu métti ba ñu mel ni ay jaam ñaar fukki ak ñaar da la am monte Mariama Maane mi daal nañ koy tëj ràpp ci kaso bi la mu wax daal moom moo da doon fayu ci yaayu xale yi vox populi ne ma juróom-ñaar ci xale yu góor ñoo daal fekk ab xale bu jigéen bu am ñaar fukki ak benn daal koy sàkku gannaaw ba nga xam ne Sénégal jël na coupe d'Afrique bi tëngéej la amee juróom ci juróom-ñaare daal dinañ leen di jàpp déglu leen waaye dañ leen a bàyyiwaat yaay ja ànduk njàqare xam le ne la ñu def doomam ji bu ca yoon waxul leneen mën na caa juddu Ama Baldé Modou jàmm Luc Nicolaï daal dinay bàyyi boobule combat nuy naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse yëgle kaay bi na dee sa kaasu ko fi nga góor bala ngay naan ma wax la li xew ci réew mi réewum Sénégal kenn umpulewul ni fa yi ñu génn ñu ngi waxtaane benn ndaw su jigéen soo xamante ni dafa jàpp ay doomi wujjam yëgle kaay bi ne takk leen ngalaab leen ngaraaw leen filmé ko envoyé ko wujj wa ngir naqaral ko aw su def ci la jëf kooka Mariama Mané lay wuyoo moom Mariama Mané yëgle bi ne prison la mujjee moom nag laata muy dem ca prison ba ba mu jàkkaarloog la mu fësal xamle ko moo di lii en la dóoruma gone yi dama damaa bëggoon rek seen yaay gis ko xolom naqari yëglekaay bi ne xolub yaay ja naqari na am déet lu ci am ba des moo di xol bu ko gis vidéo ba yëglekaay bi ne am nga lu la metti ndax na mu def gone ya ca vidéo ba ak la mu doon wax gone ya yëglekaay bi ne doy na waar li doy waar te ëpp tool ubbil yéenekaay bi moo di gone yi mbuur yi am fanweeri vidéo yoo xamante ne yépp a doy waar ubbil yéenekaay ba gone ya lañ doon def ca vidéo bi ku ne ay elewa def lii da nga naan déedéet ñii kay ñooña loola la ñuy liggéey jëf ju ban ju la ko gone yi def jafe ay waay ñiy defati nan yëglekaay bi ne ñooñoo ñan la waa Tëngéej Vox Populi ne ma juróom-ñaari ponkal sëggati nañ ci ko am ñaar fukki ak benn yëglekaay bi ne fi toll ni kay waa ñoom noo ñeet yi ñenn ca ñoom dañoo rakkaaju laa wax ndax si du quotidien seen jigéen yi fi toll ni tembe la plupart ñenn ca ñoom li leen yitteel du leen lu dul seeni fees gën a yaatu laa la wax seen ndigg sew seen kaw yaatu taxaw bu leen taal ba yaatal leen nañ leen ni leen doo leen taal diirum ñetti fan wal fajiri quotidien ne seen raalaa la wax pour yéena li nga xam ni moo di signalu Sig FM ak seen TV le quotidien ne fay nañu signal Sig FM ak seen TV ndax revue de presse ay dara bi yëglekaay yu Thiès Info gi ne bu fekkee looloo tax moom Bougane Gueye Dany ne ñoom li ñu bëgg duma ko mas a def laa la wax li ñu bëgg moo di ma dàq licencié ki nga xam ne moo di Ahmed ay mi te du ma ko def waay waay moom Ahmed Aïdara du mooy maire waaw moom ci jëmi boppam moo choisir ànd ak man liggéey continuer liggéey donte maire la di jikkoy bañkat dëgg yëglekaay bi ne bugaan ngay danee ceekaat doom ne xëy di daan doole moo gën toog di lekk xaalisu askan wi dëgg it kon nanu ko bàyyi mu liggéey liggéeyam est-ce tëj nañu signalu Sen TV ak Zik FM yëglekaay bi ne alxames ca ngoon ba dimanche ca ngoon muy soog a tàkkaat waa Grand Place ne place bu mag bu rëy bu yaatoo yaatu lépp bugaan ngay dane fa séenee taxawee ci kanamu ndaw ñi te jokkoo tiiñal makki ba amoon ca Pikine yëglekaay bi njiitum réew mi président Macky Sall li mu digoon waa Pikine waa Kër Massar ba tey defu ci dara te kat ñoom ci jëmi boppam li ñuy xaar mooy ma dàq Ahmed Aïdara du ma ko def laa la wax Babacar Diagne ci jëmi boppam laa wax na dem noppalu ji ci ne ci fitna yëgle kaay bi ne fi toll ni tal te sax a noppalu kooka njiitum réew mi président Macky Sall lay wuyoo si du quotidien waa CEDEAO ci jëmi boppam ñoo ko teg pression di ko jox ay délai yëgle kaay bi fi mu toll nii nag ñetti weer la joxe délai pour mu defal leen rapport sur l'état d'éducation la mesure d'abrogation ay du jëm ci boppi boroom yëglekaay bi ne coow lu Ousmane Ngom lii bu nu wattuwul rek musiba mbaaba kumba xew le mandat ne li xew ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr musiba mbaaba kumba du ko gën a rëy yëglekaay bi ne seen coow li faat ay bakken ubbil yéenekaay bi bu nu wattuwul nag dem mu yëngalaat réew mi waaye kenn da koo talul revue de presse du jour ko xamle le mandat ne boo wattuwul nag coow li ne ni ko Ousmane Sonko bëggee ni ma ko waxee ndax dina demee noonu ndax woon a ñëpp ci dal waaye boo wattuwul coow rek képp dong la nar a ma ni mbir moomu ñoom ñaar la rek Ousmane Sonko ak waar man li ma yitteel mooy équipe nationale bu Sénégal bii naka lay mujjee ñun ñu doon champion d'Afrique yëgle kay bi ne qualifié coupe du monde talu ñu coow de déedéet fi mu toll nii kay leen rek ñu féexal suñu xol mbéexee xal dundu jàmm ak salaam ñi nu teg seen mbégte mu réy mi le yëgle kay bi ne du ñenn ñu dul gaynde yi ñoom Sadio Mané ca lañu bokk te ñooñe bokkuñu ca waaw waaw coupe du monde ba laa wax de tirage ba fas yéene noonu koo amal ni ki tey jiley xam ñaa nga xamante ne ñoom la ñu fas yéene jonganteel sunu pool yëgle kay bi ne li neex ci ñun nag mooy ñu boole ñoo Qatar États-Unis ak Équateur pur tirage ba nag stade yéen a kaay ne mooy ñu boorañoo ak Allemagne Canada ak France oh loolu du ma neex yëgle kaay bi ne daf may fàttali 2002 bu askanu sunu gaal daje ak France laa la wax mooy raw mbojum kaani ku jige toxoñu ma ni la ragaluñ leen laa la wax ñoom waa France waaye nañ bàyyi ba ci kanam rek moo gën a wóor de ñu dem demuma fenn laa wax ma ni ragaluma leen l'impossible n'est pas gagné dañ jaay yëgle bi ne lion yi ñu am waxuma la France nañ laa bi ne bokk nañ 11 yéenekaay bi bokk nañ ci onze personnes yi nga xamante ñoom la ñuy tiit pour ragal yëglekaay bi ne sunu làmb yëg si na wax ci li nga xamante ni moom moo di diggante Ama Baldé ak Modou Lo Modou xarañ Lo loxoom ca làmb ja tey ci aljuma ji bu 10 jotee la seen a jàkkaarloog tasxati xibaar yi wax ndax làmb ji dina amam déet waaye lu ci am daal li may xeeñ laa wax dara ma ci neexul est dina amal làmb ji ki bëgg ñu amal làmbam digganteem ak Eumeu Balla Gaye 2 ji lay wuyoo di Sa Thiès Triple Less di Sa Thiès Triple Less doomi ba Less yëglekaay bi ne moo bëgga bëgg a laaleeg Bombardier mbaa Eumeu Sène yéen ñi may teelu ndax loolu logique na ah doy na waar te si laat yi bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam